bisimilah mu dee laaju mbokk mi muy laaj ni nga xam ne ñeen ñenn ñi dañ koy def buñ jullee farata ba noppi dañuy àndu nale buñ bëggee naafila mu ne loolu dafa mënta ñàkk wala dañ koo santaane déedéet loolu day nekkul loo xam ne lu ñu yoonal la maanaam nekkul lu yonent bi salaasam jàngale wala saxaaba wala ñu dañ koo jëlee ci daka def wala kenn daka daan def ci euh, saxaaba yi wala taabi'i yi déedéet loolu xëy na nit ñi daal donte ñi koy def nag bari na waaye daal gisuñu fenn fuñ ko bind wala fuñ ko santaane wala fu ñu waxee ne sopp nañ fa nga jullee farata bul fa naafila loolu moom amut loolu moom euh, wéragul ci liñ jot a gis xëy na nit ñi daal ñoo ko bëgg a def di ko def ñeen ci gis ay nit di ko def ñu di leen ci toppandoo am na nag benn euh, xalaat bu ci ñenn ñi indi ñoo xam ne dañ lool dañ koy def ngir dañoo bëgg yowmal xiyaam dañuy wax ne barab boo sujjoot rek barab boo sujjoot da lay seedeel fa yàlla ne ne ne jaam bii de mas naa sujjoot ci man di la sujjootal yow yàlla. ñu ne kon fa nga jullee farata foofa dan la seedeel su ko defee nag nga àndoo dem feneen su jootal fa waaye loolu im ci mën a doon daal du waxi lislaam du ndigalam kon xëy na nit daal moo def ay xalaatam rek def ko la tax mu def ko ñenn ñi nag dañuy gis ñii di ko def rek ñu di di toppandoo waaye daal loolu lislaam santaani wu ko ñun de gisaguñ loolu wallahu aalam bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal nabiyina muhammadin almakin wala alihi wa sahabatihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim wajal kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bismillah mbokki nu waseene dellu si jéema tontu laaj fi jotorot ci ndimbalu suñu borom subhanahu wa taala ala mazhabil imami malikin rahimahullahu taala ak ci déggi ni boroom xam-xam yi ñuy doyloo seeni wax bu dee mbokk mi laajam muy laaj bu fekkee na nga julli gee ba def safa witar ba noppi ndax sañ nga boo tëddee ba xaaju guddi nga jugaat def say nawaafil defaat ay naafila tontu li mooy waaw loolu de sañ nga ko waaye nag doo baamu witar man ngaa daal julli sa fukki rakka wala fukki rakka ak wala ñaar fukki rakka wala la nga man waaye waaye witar ga nag moom du jar nga di ko baamuwaat doo ko baamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaari witar moom ci génn guddi mënta am kon ñu bàyyi ko xel bu dee ñaareelu laaju mbokk mi mu a imaam joo xam daa am ngànt ba noppi continuer julli ga luy atteb julli googa waaw xam nga mbokk mi leeralul ban ngànt la xëy na mën naa nekk ngànt loo xam ne imaam mën naa continuer mën naa nekk loo xam ne imaam mënta continuer ni ki ngànt loo xam ne day yàq julli ni ki imaam fàttaliku na jëpp wala imaam dem ba mu yàgg mënatut a wax nga ne du mën a jàng di fatiha wala mu dem ba mu yàgg ndiggam wala dara eh, am jafe-jafe mën a tudd a mën a tudd a siggi xam ne daal mën a def loo xam ne farata la ci julli gi su boobaa moom kii ma mënta continuer faaw rek day wuutal imam ci misaal bu njàppam toje faaw day wuutal bu continuer julli nag julli mbooloo mi ñëpp dañuy yàqu même ña nekk ci ginnaaw sax su boobaa nag bu leen ko imam waxut kon ñoom amuñ ci benn xaq day jàpp ne seen julli mat na rek ñoom fekk xamuñ ca dara soo dee imam boobee nag mooy gàddu lépp te imaam boobee nag matut matutut jikko yi ñu doon taamu ci imaam moom amatu ko ndax ak maandu nekkatul ca nekkatul ca moom bu fekkee ne daa am ngànt loo xam ne ci misaal mu dem ba yàgg biiram di metti waaye mu daal di continuer rek dëgër continuer julli ga waaye nam doon jullee moom lépp wér na amul dara lu ci yàqu su boobaa loola wér na wallahu taala alamu sawaaba bisimilah mu dee laaju mbokk mi mu ne ki fàtte xabla salaam ci jullik tisbaar ba mu koy fàttaliku muy ba mu sëlmalee timis nu muy def waaw ah, day xool lan la bàyyi ba tax mu waroon a sujjóot xabla bu dee benn sunna la wala muy ñaar su boobaa kon jéggal nañ ko xabla salaam ba dara waru ko julli ga baax na juli yëpp baax na bu fekkee nag lam bàyyi daa man ñetti sun sunna jëm kaw su boobaa kon julli tisbaar kookee yàqu na waaye nag buy fay tisbaar rek lay fay julli ci des yëpp baax nañu wallahu aalam bisimilah mu dee laaju mbokk mi ji tegu mu ne koo xam ne dafa faatu bàyyi fi lu ëpp ñeenti soxna soxna ye tege ca ñeent ya luy seen atte waaw takk juróomi soxna lislaam ku ko def ab faasix la lay jàppe koo xam ne xam na ne am na ñeent mu tay ko dem takk ab juróomeel lislaam faasix la koy jàppe njaalo gu wér la koy jàppe ndaw sax bu fekkee xam na ko moom it faasix faasixa lañ koy jàppe ba noppi am njaalo kat euh, maanaam njaalo lay def la muy def tudd tudd ab say njaalo la loolu nag bu leeree atte bi day daal di leer <coughs> kon ñoom jëpp ñu dañoo maanaam li nga naan daa takk lu ëpp juróom déedéet takk lu ëpp ñeenti soxna mënta nekk da ngay takk ñeent ba noppi topp sa bakkan ci leneen <coughs> kon loola du du ay soxna lislaam bala moo mën a wax ne lii soxna la mooy sart yi dañoo daje mu xam ne lii sëy bu wér la waaye sëy boo xam ne nag du sëy bu weer loola moom duñ ko jàppee soxna xanaa ñaari ñu ànd di ut kenn ko rek di ut bànneex ci anam boo xam ne lislaam mayewu ko kon nag bu fekkee leer na ne ne loola góor gi nga xam ne am na ñeenti soxna xam ne ne ñeent lañ koy yem loo mu tey ko dem di takk ab juróomeel te ndaw sa moom xam na ko kon ñaare ñu ànd mooy yàlla la <clears throat> su ko defee nag kon ñeent ñee la ñuy jàpp ay soxna comme ñeent ñee la ñuy jàpp ay soxna nag miraas mi bu ñu miraas dañuy xool li lislaam euh, maye woon la lislaam d'accordoon muy ñeent ya ñu miraas loolu la ca des nag ñu jàpp ne ñaari ñu àndoon di rek la ak ñaari faasix ñaari faasix ñaari ñoo xam ku nekk daa génn ak topp te yaa ko tey <clears throat> loolu moo ci atte sariya bu fekkoon nag ci te lañ ko defee ne ki waa xëy na da koo fàtte woon wala dafa daal am am lu mën a tax daal moom nekkul ne daa takk juróom te moo ko tey wala ndaw sax tamit dañ koo war rek dañ ko dañ la may diw moom it lijjantiwut <clears throat> mu dugg ba ci biir mu doog a xam ne ndekete waa ji juróom la amoon kon suba ndaw sax day daal di dañ ca saasa day daal di du daganati muy continuer ak moom benn minute bu gën a bu a néew na jël ay bagages am daal di jërut muy xaar mu naa fase naa la ndax sëy amu fa amu sëy bu ñu takk bu wér bañ koy fase ka ko takkit bu fekkee woor na ne ab xamoon na loola def na lu xaraam ta dana ko layeeg suñ borom subhanahu a taala waaye daal bu fekkoon ne njuumte moo ko waral njuumte bi rek yàlla xam na muy demee su boobaa kon euh, nikaahu shubha lañ koy jàppee ak lant la góor ak jigéen heure bu ñu jotee ngir lu lënt nga ne njaaloo taxu leen a jóg incha allah heure bu ñu ko yëgee dañuy dindi loola xam ne loola njuumte la doom ja nag dañ koy yéegal seen kaw dee su ko dàpp jàppe doomu njaalo amaa ni mbokk mi laaja ma bu ñuy miiras dañu xam ne kii jabar la dañ ko takk ci lislaam kee la kee jabar la kee jabar foofa la ca des nag ñu jàppoon ne ñaar ñu àndoon doon mooy yàlla la ah, su ko defee nag loola moom yoonu lislaam ci wàllu miiras du ca nekk wallahu aalamu bismillah mu dee ñaareelu laaju mbokk mi mu ne am na ñoo xam ne mu ñuy Eh, yenn julli yi lu mel ne xëy na julli timis nag la ëpp lu ko nit def bu ñëwee dañuy ñëw taxaw ci bunt bi mu dem mbokk mi nag ni mu laajee nee na li feek taxawaluñ duñ dugg ci biir jàkka ji loolu it ba tey du lislaam ba tey du sharia lislaam santaani wu ko nit ñi léeg da ci am jëf yoo xam ne ñoom ñoo koy tëggal seen bopp di ko def lañ cay nattale na ñoom ñoo ko xam waxala ku li xaal lislaam moom santaani wut loolu amul genn julli goo xam danaa bu ñëwee boo taxawal ci bunt bi wala jàll ci biir kuy jóg ku ja tax jóg daal boo ñëwee dugg ci jàkka ji bu fekkee la ñuy bañ daam am luñ ciy bañ maanaam dañuy dañ naan ginnaaw takkusaan dañuy tere ku fa naafila kon su ma te ma jugee duggee ci ji damaa war a def ñaar raak kon na naa taxaw ci biti loolu loolu ñoo ko defal seen bopp diine du loo xam ne yaa koy këlkinal def loolu nag ñi def bari nañ lool ba ay kilifa sax da ngay gis ñu def waaye nag ñoom ñoo ko këlkinal seen bopp natt ko di ko def waaye du defi lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dañuy wax ne képp koo xam ne da ngay jaamu yàlla bala ñoo nangu sax jaamu yàlla gi wala ñoo lu ko faaw ñett sart dana ci daje bu njëkk bi faaw mooy faaw ak ngëm da koy lal ñaareel mooy faaw da koy def ngir yàlla ñetteel bi mooy faaw da nga ciy roy yonante bi sallallahu kan moo doxale benn xadis ci yonante bi sallallahu alayhi wa mu ne bu masaa di ñëw waxtu naa day taxaw ci bitti du nangoo dugg ci jàkka ci kenn kon nag loolu moom ñoo koy defal suñ bopp kon euh, bu heure boo xam ne dañoo tere ko fa naafila duggal ci jàkka ji bul naafila buñ la waxee lu tax nga ne yonante bi sallallahu ko tere waaye na taxaw ci bunt bi ne léegi damay taxaw ci bunt bi su ko defee du ma dugg ndax eh, nee nañ ko dugg da nga war def eh, ñaari rakka tahiyatul masjid yi te heure bi dañ koy tere comme dañ koy tere jeexal na wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam moo la digal ne boo duggee ci jàkka na nga def tahiyatul masjid moo la tere naafila ginnaaw takkusaan kon duggal ci jàkka ji kii nodd nodd wala lu ñuy def ñu def ko waaye daal teewut nit ñi ñu ngi koy def taxaw ji buntu ba waxalaa euh, kulli xaal daal du mbirum lislaam suñu calcul bopp la ñoo ñoo ko tëralal suñu bopp rek waaye amul kenn koy dégg ñu ne maa ko jàng ci téere nangam wala imam Malik moo ko wax wala imam Shafi'i wala ngir mi wala saxaaba diw moo ko daan def wala yonente bi sallallahu alayhi moo ko daan def loolu moom euh, incha allah amu benn boo xam ne bu ñu soloo la wallahu taala alamu sawaaba kon daal kuy julli si jàkka ji tax laa jóg boo ñëwee duggal ci jàkka ji bu dee waxtu woo xam ne euh, dagan naa naafi la boo ñëwee bala ngaa defal sa yaari rakk yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na isaa daxala ahadukum al masjida fala yajlis xatta yarkaa rakaatayni ku dugg ci jàkk bu mu toog lu dul dafa nuyoo jàkk ci ñaari rakk bu fekkee nag day waxtu woo xam ne dañuy tere ku fi naafila ki ginnaaw takkusaan wala ginnaaw jullik suba ñaari waxtu yi dañ koy tere suba boo duggee kon su boobaa boo duggee kon bul ko def boo duggee taxawal rek xaar ñu li xam nga ànd ak imaam julli ñaari waxtu yooyu moom dañuy tere ku fa naafila incha allah wallahu taala alam bisimilah bu dee mbokk mi laaj ne am na ñoo xam ne bu ñu fekkee imaam di xutba ajuma dañuy dawal yaari rakka def tahiyatul masjid am ñoo xam ne duñ ko def waaw boo ci def rek wér na boo ci def rek wér na waaye boo ci def nag na nga maandu jàpp ne ka ca des lam def wér na yow it li nga def wér na rek li xew yeeg li xew léegi mooy wuute wuute gi nga xam ne yenn masala yi wuute na ko nga ne boo boo defee bi da ngay def ne kee lam def baaxut loola njuumte lu rëy la. li ñu tuddee amaanatul ilmi léegi daa xaw a manqué lool am na masala yoo xam ne yëpp wér na xab doo kee teg loxoom ci dënnama kee wàcce loxoom yëpp wér na euh, kee tàmbale euh, euh, bismillah kee tàmbale ci julli ba tey yëpp wér na kii ñoo fekk imaam di xutba mu julli wér na kii ñoo fekk imaam xutba mu toog ba tey wér na mi ngi aju ci foo sukkandikoo bu dee ci al imaam Malik bii ñuy sukkandikoo nag imaam waxuma la xutba sax waaye bu xasee ba toog ci kaw foofu ñooy nodd rek soit boo ñëwatee doo sañ a naafila na ngay ñëw rek toog incha allah bu dee imaam di xutba ngay naafila nag ñoom dañoo jàpp ne dafa xaram loolu nag mooy masab bi nga xam ne mooy sunu masab masab al imaam Malik teew na xadis bu wér roon na ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mu ne euh, bu nit ñëwee ci jumaa ji fekk imaam di xutba na dawal yaari rakk xadis bu wér la yonante bi xutba na am ku dugg si jàkka ji mu dagg xutba bi kooku daa dugg toog mu ne ko jugal def ñaari rakk yooyu yëpp ay jàngat la yoo xam ne. waram xam-xam yi kenn ku ci nekk am na tegtal bu dee yoon al imam am nañu ay tegtal yu wér a wér a wér ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaaba yi rawatina Seydina Omar euh, jamono yi muy nekk xalifa ak amalu ahlul madina yooyu nak borom xam-xam yi ñoo koy mën a teqantal wala kulli xaal bu dee ci yoonu Malik ngay sukkandikoo boo duggee bul def ñaar raaka toogal boo gisee keneen def ko nag jàppal ne lam def incha allahu rabbi wér na ci xam-xam wallahu taala alamu sawaab te kenn ku nekk maano bu dee ñaareelu laaj bi nag mu ne koo xam ne dafa julli ba sëlmal gannaaw ba mu yëg ne julleem gi matut waaw booba bu fekkee daa yàgg kon julli gi day yàqu day liqaamaat julliwaat bu fekkoon ne yëggul nag day jóg rek yëkkati ay loxoom kàbbar ngir yéenee mottali la ca des mottali la ca des bu noppee taaye sëlmal def baada salaam wallahu aalamu bismillah mu dee laaju mbokk mi mu ne lislaam dafa teg daan yu métti jigéen bu ko borom këram soxlaa mu bañ yokk ci te amul ngant yokk ci loolu te amul ngant ngante yi nag yaatu na lool mu ne ndax kon góor moom it bu ko soxnaam soxlaa mu lank te moom it amul ngant ndax da cee am ay daan waa xam nga xel nanguwut <laughs> ñu ne kii dañ lay teg ay daan te yow duñ la teg ay daan su waa kon dañ naan lislaam maanuwut loolu xel nangu ko ab sëy moom ñoom ñaan ñëpp ku ci nekk da nga amel sa morom ay xaq ku ci deful say xaq rek. da nga ko layoo ci kanamu sa borom bala ngaa jéggi siraat wala bala ngaa euh, dem fenn ëllëg yowmal xiyaam loolu moom amul werante bu dee jigéen ji nag àq ji daa gën a diis moo tax maanaam àq jëkkër daa gën a diis ndax jëkkër ji mooy kilifa gi moo tax sax bu ñuy takk jigéen ji moom day toog rek jëkkër ji moom la ñuy sant mooy labat mooy joxe euh, ak can mooy joxe lu war ci soxna si bu ñëwee moo ko war a nekkal moo yor sécurité bu ko dara ñëwoon di lor daa war a ñëw défendre ko ak lu ko ci fekk baax na moo ko war a dundal moo ko war a jox ah, looloo tax nag àq ji gën a diis àqi góor gi gën a diis looloo tax bu fekkee jigéen la léeg fi fii ci àdduna dañ koy teel a régler eh, incha allahu rabbi ak ay xadis yu diis rot ca waaye nag loola tekkiwul ne ba tey jigéen it bu fekkee jëkkëram da koo tooñ da koo def leneen loolu du ci am xàq déedéet su boobaa ak maandu <laughs> suñ borom moom maandu ci moom la fekk baax képp ko amel sa morom xàq rek da koo layoo ëllëg yowmal xiyam ñoom ñaar ñëpp ñoo ci yem fekkee nag loola ngant la su boobaa kon ngant moom doxul ñuy wax ngant nag borom ngant moo koy xam nit ki mën na ne soxnaam dama laa soxla mu ne ko damaa am ngant ngant nekkul gis baax donc déedéet mooy jigéen ja la mu nekk ba tax mu xam ne jékkul ngir joteeg borom këram loola ngant lañ koy tuddee doo ko mën a wax ne ko déedéet amoo ngant déedéet ndax ngant nit ki moo koy xam loolu nag bu fekkee ne jigéen ja day tappale loola amut loolu digganteem la ak yàlla su boobaa kon daani yàlla wax daal di kawam fekkee ca dëgg ca dëgg-dëgg am na ngànt nga ne moo ko xam ne jëkkër ji weddi ko loola du ci am benn njariñ nag te loolu day faral di indi ay ay jafe-jafe jigéen ju dama am ngànt borom nga ne ko amoo ngànt loolu dëgg dëgg jaaduwut ndax ngànt am na ci ngànt yu feeñ mën a xam am na yuñ mën a xam euh, am na jigéen yoo xam ne ci misaal bu ñuy joteeg seen borom ko mën naa dara metti ci ñoom mën naa am sax jigéen ñi dafa parewut dafa noppiwut ngir xëy na euh, dafa sonn wala xëy na leneen loo xam ne moom moo ko xam ci boppam suba boobaa loola bu ko seedeelee yàlla ba mu wóor ko lii ngànt la su boobaa loola amu ci benn daan incha allahu rabbi te borom kër bi du sañ nak ne ko faawu rek amoo ngànt wala nangam nangam ndax am na yu ñu mënta wax ni nga xamee ne góor moom it mën naa am ngànt mën naa ñëw sonn borom soxnaam sonn mu ne ko damaa gëmmit wala def nangam ñooyam xaq jigéen jet bu fekkee sonn na tëdd di dallu góor gi amul sañ-sañu ñëw ne ko faaw damay jot ak yow déedéet loola jaadut kon ñoo tolloo ci wàllu ku ci tooñ sa morom incha allah da nga ko fay àq la joo xam ne dañ lay topp ëllëg yow ma xam bala ngaa dem fenn waaye na àq yi féete ci góor gi daa gën a daa gën a daa gën a diis wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee laajo mbokk mi xam naa mooy bàyyi xel ndaa mi leen laaj bi xaw naa suufe surtout laaj bu njëkk bi mu ne ab sëy bu fekkee dafa am coow ba tas tegu ci bagage ya ak yu mel noonu nuñ ko war a def nañ ko war a def yomb na mooy kenn ku nekk jël la moom loolu rek la ku nekk daal la moom ngay jël kenn sëñ te jël alali jàmbur loo aado jooji wala fi wax naan bu fekkee jigéen jee ñaan baat kon du yóbbu dara ak bu fekkee góor gee maye baat jigéen ji day yóbbu lépp loola wérut loola xam nga du ak maando eh, ñaan baat tekkul da ngay ñàkk say sa sa alal maye baat nga ñàkk sa alal kenn ku nekk la moomoon dong ngay yóbbu loolu rek la lépp lu góor gi jëndaloon jigéen ji jigéen jaaka moom bu moom la ba muy sëy si ñu jëndal ko lal defar ko kii bi defar ko nangam jënd nangam defar loolu dañuy jàpp ne jigéen jee ko moom kon bu dee tapis la dañuy ne kon ba tey moo ko moom kon nag loola mu ñaan baat wala wala ñu may ko baat ñoo ci yemoo buy dem da ko yóbbu ndax alalam la yaa ko maye yaa ko jëndaloon lépp loo ko jëndal ceenu ore yéree lu mën a doon rek da yóbbu ndax alalam la léegi góor geet lépp loo xam ne alalam la nga xam ne lii moom yëf yi boppam la xam ne du du seet bee taxoon ñu jënd ko loola alalam la loola maye ga maye baat du tax na jigéen ñi waabale ko yóbbu loolu nag bëri na ci ay njuumte lool naa gis jigéen joo xam ne day ñaan baat ñu ne ko kon doo yóbbu dara alal ji mu bàyyi ko fa loolu lekk moo ko sàcc alal jàmbur rek ñooyam wala góor gu maye baat ñu ñëw di jël si bagage yi ñëw yoon waale nii bépp alal bi fi bàyyi woon lépp mën naa am ventilateur boo xam ne moo ko moom mën naa am nangam jël ay yërëm tuur loolu lépp du jikkoy ab julit euh, li muy tekk rek mooy Sénégal moo ab sëy bu yàqoo rek ñaari yi day daal di yàqu ba faaw du ñu mën a xoolante du ñu sóorat sóorati ëllëg du ñu sóorat am nañ doom daanaka daal bu sëy xasee ba yàqu rek jikko ju ñaaw ñaaw ngay ngay gis loolu nag du jikkoy ab jullit ndax sëy du dara lu ab ànd buñ ne ba gis ne xëy na ànd gi gënatut ku nekk dem yàlla nee na wa in yatafarraqa yughni llahu kullam min saati ab sëy buñ ne ba ñu tàqali ko ku ci nekk yàllaa la yore jigéen nekku ne wërsëgam ci jëkkëram la nekk dégg nga góor it nekkul wërsëgam ci jigéen la nekk kenn ku ci nekk yàllaa yor sa bu ñu tàqali ko dañuy rek ëllëg kenn ku nekk dem seeti keneen kon nag buñ tàqali ko ku nekk la nga moomoon ñu xam ne lii yaa ko moom benn jëkkër jee ko may wala ndaw see ko moomoon wala lii góor gee ka mu leer nañ ku nekk da ngay jël la nga moom rek doo yóbbu yëfi kenn wallahu taala alamu sawaaba bismillah laaju mbokk mi mu ne muqim buy jiite musaafir wala musaafir buy jiite muqim maanaam koo xam ne dañoo sunnaal ci moo xam naa mbokk mi nag ni mu laaje ndax daane ko xam daa war a wàññi wàññi ma warul kenn nekkul waajib doonte xam naa waxin la xëy na kon da nga naan koo xam ne sunnaam mooy wàññi mu ne ndax dana mën jiite koo xam ne daa war a matal man na koo jiite bu ko jiitee dana wér waaye gënut euh, taamuñ ko ndax day indi julli di wuute ndax ki nga xam ne musaafir la moom ab tukki ab tukkikat la ta sart yi daje ci moom ñu sunnaal ci moom wàññi kon suba day jiite ñaar raka daal di sëlmal kee jug mattali kon gis nga seen julli xaw na wootee moo tax loola gënut donte buñ ko defee a baax lu dul nag bu fekkee ka ko def day ab xalifa wala day ku fonk lool xalifa jullit ñi nga xam ne am incha allah kooku moom su boobaa mën naa jiite yow dama imam Malik dañ ko cee génne ndax Seydina Omar ibn Khattab defoon na ko te booba xalifa la moo tax sëlmal ne kon mottali leen waaye bu dul loolu nag dañ koo sib euh, li mënta nekk nag mooy kiy matal jiite musaafir bëgg a topp ci ginnaaw loolu mënta nekk ndax su boobaa musaafir far force day matal far force day matal boo wàññee rek ak julleem day daal di yàqu kon nag looloo tax boobu sax lañ gën a bañ nag moom boobu lañ gën a bañ ne ko Cheikhul Khalil waxee kon saa yoo xamee ne yow yaa ngi yor àtte tukki ñu sunnaal ci yow nga wàññi nga dem ca jàkka ja fekk ñay matal ñu jiite la jeex na yaag ñooma yam léegi boo julli nga julli ñeenti rakk yu mat sëkk boo jullee ñaar rakk sëlmal sëkk julli yàqu na du wér kon nag moo tax boobu moo gën a garaaw wallahu aalam bisimilah mu dee laajo mbokk mi mu ne ko ñàkk pexe ba nga xam ne julli ci oto dong nga ci des na loolu rek moo gën a gàtt ci laaj bi nan lay jullee ci oto bi moom daal jàpp na dugg ci oto julli dab na ko ci yoon wi chauffeur bi nangu koo may nu muy jullee awalan dañuy xool ba xam est-ce que balaa oto bee àgg ci dëkk bay taxaw dana fekk waxtu wi jeex wala déet <clears throat> donte darooru yi jëla ci misaal bu dee julli suba la ñu xam ne oto bi kat am na dëkk bu nekk ci kanam war na faa taxaw ba nga mën a julli te fekk ne jant bi du sox du fenkagun soo da ngay xaar ba àgg foofa doo mën a julli ci oto bi boo àggee fa wàcce daal koy julli donte ci darooru yi jëla waaye bu fekkee ne kat oto bi moom du taxaw euh, te waxtu wi nar nga koo faat te bala nga àgg fa nga jëm fekki waxtu wi génn kon da ngay jullee ci oto ba nanga mane nanga mane rek toog ci banc bi liqaam yëkkati say loxo kàbbar buñ ne boo boo dee rukkoo nga xaw sëgg tuuti siggar boo dee sujjoot nga sëgg bu baax ngir wane ne lii mooy sujjoot bi noonu ngay def rek ba julli gi jeex incha allah wallahu taala alamu sawaaba bisimilah mu dee laaju mbokk mi nag xam naa ne euh, laaj bi dafa lënt ci ñun ndax mbokk mi daa am lum njëkk a wax lu jiitu ab àtte doog cee teg laaj bi ne xaw ma ko am doom ne doom ji juruma ko Euh, bu ma dee bu ma doon euh, ak yu ca aju ne ndax ginnaaw ba ñoom ñaar darañ mën a takkante laaj bi moom daf ñuy xaw a lënt euh, mbokk mi ni ko laajee man xawuma ko ndax lim wax man xawuma ko ci ci diine lim wax ne ku am doom jékki-jékki doom ji juruma ko loolu amul ci diine diine doo jékki-jékki naan kii maa ko juróole kii juruma ko noonu rek mu jeex déedéet lislaam mooy saxal nit ki boo waxee ba noppi day bàyyi lislaam saxal kon ni ko waxee ne lislaam nee Euh, lislaam dana kooku du bàyyi déedéet lislaam waxugu ko parce que da nga ne rek benn waay bu am doom ñëw ne doom ji juruma ko déedéet fi yombewul noon nit mën na am doom ne juruma ko sariyaax ne ko yaa ko jur nit mën naa am doom ne kii maa ko jur wala doom mën naa judd mu ne kii maa ko jur sariyaax ne ko juróo bu fekkee am na ay preuve yu kon nag laaj boobu daal xanaa dañ mbokk bi dañu koy jégal nax daal dese naa xam lim lam jiital daal daa andi ab atte boppam ba noppi doog a andi ab laaj te atte boobu fii nawar Euh, bari na lu ci lu ci mat a xoolaat wallahu aalamu kon mu jéggal nu ko xëy na bu ajumaate bu ko mënee leer ñu xam ba xam lu mu doon moo ta daal bëgg nañ koy laaj laaj bi leer lool wala boog nga laaj lépp nga boole lépp lépp nekk ab laaj su ko dee man su may tontu su ma tontu bu njëkk bi nga ak bu dee nangam am na ndax nangam su ko dee ñu mën a tont ba ca des waaye bu fekkee na nga ko tontul sa bopp ah te la man gisee wu ma ko noonu du ma mën a jàll bu dee ñaareelu laaj bi xam naa du sori loolu muy laaj wàllu wérdul maquus ci koo xam ne dafa def jamu taqdim koo xam ne dafa def jamu taqdim maanaam daa euh, nekk ci tukki mu xam ne bu jullee waxtu wi bu jullee tisbaar ci misaal day daal di dugg ci avion bi te balaa wàcc fekk tëkkusaan weesu nga ne may nañ ko mu sëlmal tisbaar bu noppee boole ci julli euh, tëkkusaan sësale ko noonu bal bu ko fekkee mu wara a wàññi sax da leen euh, da leen wàññi mu ne mu ne te fekk mu yor wérdul maaquus loolu nag li ci gën mooy keeru wérdu bi laaj ka ko jox daa am loo xam ne euh, li ñu tuddee isnul xaas lay doon xam nga du sariya xam nga bu ñuy wax wàllu wérdul maaquus waxuñu waxi sariya léegi ñu ngi wax ci wàllu leneen ci wàllu loo xam ne yàlla da koo jox ab jaama am lu mu ko ja xamal loolu nag mbirum xaas la su boobaa nag kenn ku ci nekk kala jox wérdu bi loo ci bëgg xam ci lu leer rek wala ay atte wala loola ci jaaxal boo delloo ci moom laaj ko ne ko waa su ma defee nangam loolu moo gën bu dee fii nag ñun liñ bind ci téere yi mu leer xam nga boo demee ci yeneen borom xam naa leen wérdul ma xus ñoom duñ ko xam ndax jànguñu ko ci sariya kon mbirum xaas la loo xam ne yàlla moo jagleel ab jaamam jox ko ko lu ci nit xamul nag day dellu ca kookee wala boog ñaka fi nekkal wala ñam jàngal loola wallahu aalamu bisimilah su ko defee mbokk mi ñu ngi koy ñaan nay bàyyi xel laaj yi muy gàtt xam nga jot daa xaw a manqué lool rawatina boo fekkee ay laaj yu baree baree bare premièrement benn bu nekk da ko war a déglu ba mu jeex nga doog a ñëw ci tontu li loolu nag bu fekkee da ngay laaj laaj boo xam ne dana jéggi minute wala muy waaja mat ñaari minute rek ah, su boobaa day xaw a metti te daa laajam bu njëkk bi rek minute ak vingt cinq seconde laaju ñaareel bi mat na ñaari minute ba teg sept seconde kon boo léegi mu di ci bàyyi xel day xool rek li am solo ci laaj bi jërut nettali yi ak jaar-jaar bi dere ci misaal laajam bi bu ne woon ah damaa dégg kat yon ci benn xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, kanjaal woon ba ñu ray ko yonente bi dama ko gis àjjana muy déri ay mbalaanam tama déggoo nit ñu ne ñi nekk ci bàmmeel ñëpp kenn demagu ci àjjana loolu nuñ ko mën a déggee loolu boo ko waxoon daanaka mën naa bañ a mat 30 kon ñu ñu ngi ko koy yalwaan incha allah waa bu dee loola <clears throat> euh, li wér mooy àjjana moom nañuy wax ne yowmal xiyaam rek bu ñu attee nit ñi ba ñee dem àjjana yàlla ci yàlla boole ñee dem ca safaan ba yàlla nañ ci yàlla musal su boobaa la àjjana la ñu doog a dëkkee àjjana waaye fi mu toll nii dañu wax ne kenn demagul àjjana su boobaa nag beneen wax boo wax boo demee nii dangay ngay jàpp xëy na waxu ruux la ruux kon yonent bi saa liñ ci mën a dégg mooy dafa gis ruuxam mu nekk àjjana ruux moom mën naa dem àjjana waaye bu jenn jëmm du demagum nga jàngee ci aljawharu nafis inni ara eh, yajuru fil jinaani thiyaabuhu faftadaha saxsaani ko eh, sëñ bi doon wax incha allah naka noonu boo jàngee yeneen téere yi nga xam ne day jàngale wàllu te loolu ba tey xadis la def naa mu naweeru sudur lu mel noon am na ci mooy fi sëriñ bi di jàngalee nit ki bu nekkee ci bàmmeelam am na ci tasooru subaan buñ ko laajee ba mu tontu ba tontu la jub gi dégg nga lañ la wax ne dafa mel ne dañ koy defal àjjana ci bàmmeelam ndax dañ koy indil ay kilam soxla la la mu war a ñem ci àjjana dañ ko koy publicité dañ ko koy indil foofa ca bàmmeel mu tàmbale xëy na loolu àjjana la ci moom kon xëy na benn mooy ba àjjana joo xam ne dako koo tàmbalee dund ca biir bàmmeelam yàlla yaatal ko na nga ko jàngal ñu yaatal ko ba nga xam ne sab gis fu mu yem rek dégg nga am ñu lay wéttali am ay xéewal loola àjjana la waaye jëmmi àjjana ci boppam nag dañuy wax ne bala faa kenn dem yàlla atte jaañu rab kon benn muy ruuxam ndax jëmm amagul ruuxam nga nekk ca bàmmeel ba nekk ci bàmmeel ba moom la yàlla xéewale xéewal goo xam ne incha allahu rabbi loola àjjana la ci moom noonu rek lañ koy lañ koy lañ koy déggee wallahu taala alamu sawaab bisimilah bu dee ñaareelu laaj mbokk mi mu ne ku luwee oto ñu dem ba ci yoonam mu paan nu leen lislaam di attee xanaa ñu toog xaar ñu dépendé oto bi bu fekkee loolu mënta nekk ki nga xam ne moo moom oto bi jéem a wut ay pexe yoo xam ne noonu lay def ba kii mu kii mu luye woon mu fexe àgg fam jëm ñaar yoo rek la kon daal luye nga ci misaal ab camion euh, teg ci sa dugub wala sa gerte ngeen jëm jaareem ca usine ba ba ngeen demee ba Euh, la ba xojil <laughs> ñi xam côté yooyu xam nañ côté xojil ak sàmbe <coughs> ne ba ci yoon wa daal oto bi paan ñaar rek mën a am bu luñ mën a réparer la ñu woo mécanicien wala nangam mu jóge su boobaa waaj xaar dong lay man <coughs> ndax loolu dogalu yàlla la mécanicien ñëw réparer ko bam kii wala nag lool mé mécanicien kat amut wala xëy na mécanicien ñëw na nee na lii faaw suba la ñëw wala yu mel ne te waa ji mënta xaar su boobaa kon borom oto ba moo war a lijjanti beneen camion bu yenu sarsam boobee yóbbul ko ko ba njaareem wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee laaj bi ñu te mooy laaj bu mujj bi mbokk mi laaj li ñuy tuddee nasx mooy li ñu tuddee naasix ak mansuux ni ko ab aaya ñu folli ko wala ab atte ñu folli ko lu ci gis-gis yoonu Malik xanaa mooy li ciy gis-gis borom xam-xam yëpp rek moo ciy gis-gis yoonu Malik mooy lu mel noonu bari na ci alquran aaya boo xam ne dañoo folli lépp folli atte ba folli aaya ba nga ne dañ ko dañ ko gisatu ci alxuraan ak loo xam ne atte bi dong lañ folli ak yu ci ajo loolu gis-gisu waa Maalik gisu borom xam-xam yëpp ñoo ci yem wallahu taala alamu sawaaba bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah mu de laaju mbokk mi mu ne am na ci jëf yoo xam ne dañuy wax jëf nangam ku ko def yàlla tabaxal ko kër ca àjjana mu ne léegi ku def loolu ba noppi boole ci mu defaat jeneen jëf joo xam ne dañu lii ku ko def dem sawara wala ku ko def nangam ni ki bokkaale ci misaal loolu nuñ koy àttee loolu de lu yomb la lool wax dëgg mi ngi mel ni rek ma misaal ko ci adduna ndax mu neex a jàpp buñ ne woon ku am diplôme nangam ñu tabaxal la kër ca Ndakaaru waa am na diplôme boobu ñu tabaxal ko kër ca Ndakaaru du leer na mu wëlbati ko dem carte ñu gañe ko kër nu muy def mooy perte kër ga wala mu wëlbatiku def loo xam ne loi bi daa wax ne ku def nangam nañ nangu sa kër mu def loola su boobaa kon dañuy daal di nangu këram rek mooy kon defoon na ba am lu baax mu xoolewaat ba perte ko su kon moo ma perte àjjanaam noonu rek la noonu lu mel noonu rek la demee wala boo ko def nangam. ñu tànn loola ne la wutal barab nangam ñu tabaxal la fa kër moom mu dem euh, dem ci barab boo xam ne xam nañ ne ku fa tabax kër dañ koy toj mu dem tabax tabax fa kër ginnaaw ginnaaw ba ñu toj ko wala daal mu def loo xam ne dañ ne lii ku ko def boo amun kër dañ ko nangu mu def ko ñu nangu këram noonu rek la kon ku def lu bañ ne kii wax dëgg am na lu baax bindal nañ ko lii ci tuyaaba wala boog bind tabaxal nañ ko kër àjjana mu defaat lu effacé loola ñu effacé loola rek noonu rek noonu rek lay demee ni xamee ne ku def lu bon bañ ne kii daa war dem sawara bu wëlbatikoo defaat lu baax loo xam ne daa yeeyoo àjjana dañuy effacé lu bon la fa ulaayka yubaddilu laahu sayyi'aatihim xasanaat am na gaa yoo xam ne dañoo amoon ay bàkkaar yoo xam ne ku leen o ñu dem sawara waaye ba ñu tuubee rek yàlla daa effacé loola daa di saxal saxal tuyaabay kese li noonu rek noonu la demee Eh, ci misaal alxuraan nee na la in eh, la in ashrakta la yaxbatan xamaluk wala na min al jaahili yorante bi boo bokkaaloon yàlla la nga defoon lu baax lépp ak daraja ya nga amoon lépp day mabbu noonu rek la demee bokkaale day mabbu ay jëf bari na ay bàkkaar yoo xam day mabbu jëf ne loo defoon ci lu baax bañ na amoon nga lii boo wëlbati ko defaat lu yàq loola loola day yàq loola loo defoon ci lu bon bañ na am nga fii lu bon boo defaatee lu baax suñ borom effacé lu bon loola noonu rek lay noonu rek la demee wallahu taala alamu sawaaba bu dee ñaareelu laaj bi mu ne président bu ñu fal ci am réew gannaaw ba mu tabax ay tali gannaaw mu ne tali yi nag ku ci jaar da ngay fay nangam ba loolu de dara nekku ci ndax président bi ñoo ko wóolu fal ko ne ko xoolal noo jàpp ne réew mi noonu lay doxee kon nag bu gisee ne dañoo war a defar tëli yoo xam ne kenn du fay war a defar ay tëli yoo xam ne dañ ciy fay ndax fay gi ni lañ koy defee incha allah su boobaa loola dara nekku ci ab gis-gisam mooy suñ gis-gis ndax ñun ñoo ko jël doyloo ko ne ko yow daal gis nañu yaa ñu mën yoral xoolal noo jàpp ne moo baax nga defal ñoo noona lépp nu mu xool ba defee ne noona baax na te bu ca seetee yàlla rek loola wér na bu fekk da koo teg ci bakkanam kese nag wala boog tëli ba mu bëgg caa nguur ne maag samay njaboot ñoo ci jaar wala nangam wala ñu fay ci xaalis mu di ko lekk loola digganteem la ak boromam ak ak tooñ la wallahu aalamu